Merci. Merci. tooteeg ñoom joxoo fi kenn dërëm xanaa kay di leen soutenir ci seen mébét di leen jàppale ci seen avec di leen jàppale ci seen i mbébéti doom ci école yi ci université yi ci hôpitaux yi ci mbënn mi ci lépp lu mu mën a doon ñun ñii nga jàppale nag ci sunu mbënn mii nga xam ne amuñu fu ñu dugg amuñu fu ñu jaar pour dugg suñu dëkk bii ñu ngi lay gërëm tey dina sant ñang baalo Habib ñu ngi gërëm fu gërëm tàmbalee ba fa muy yem Habib li nga ñu defal gis nañu ko amuñu woon ay lamp dugalal nga ñu ay lamp xalal nga nu yoon ku la jox añ jox la reer bu la nee suba da nga ndékki ko nga porté sunu combat nag ci li nga xam ne lii moo nu gën a taxaw tey jii Habib nga ni ñu dinaa jël seen flambeau combat bi nga xam ne fukki at ak lu topp yeneen a ngi koy daw bul leen ci jot dinaa porté seen drapeau seen combat boobule muy li nga xam ne lii mooy ay ay ay maanaam këyit ma porté combat bi yobuko à l'autorité def ci sama bay ci sama tank ba li ngeen soxla ngeen am ko kon Habib ni taw bi tay Sénégal yalla fa sa tour yegg ci Sénégal maa la ko ñaan te yalla dina ko def. yaa li nga defal wa Thiès non gis nañu ko li nga ñu defal gis nañu ko collectif bi yëpp nee ñu ngi lay gërëm di la sant. presse bi jàppaleen bu baax bu bayyi bu kenn tay voté ba ngi ñëw bëgg nañu président Macky Sall majorité bo xamni bi saway bu éclatant ci bisba ñepp xam na ñu ñi ngi waajal mo semaine pour ñëw fi ci Nord route Dakar 2 jam ak pexem yalla ak dogalam. tay bo fo dem tay mu ngi taw jeunesse ba ngi fi fam ya ngi fi mag ya ngi fi bu mu woon ñëw sax dina ma président boy ñu sox sa dañuy ñew tay il nga ñew moo tax ma ne gars yi dañu jël parapluie yëpp teg ko fee parce que man aussi du ma bàyyi sama jës nekk si taw bi may ne ma parapluie di ma protéger loolu duñ ko nangu. kontaan naa bu baax a baax si wàllu accueil bi xam na tey def ngeen ko yaakaar naa ne li may far di wax waa Thiès noonu politique moo ñu boole. balaa may continuer sa aussi damay remercier aussi je disais même des amis des partenaires belges ñu xam ne dañ fi ñëw au Sénégal. tombé ci événement bi c'est toute la jeunesse de Thiès Nord bii day wane wa Habib Niang nekkatul Thiès Nord parce que fii ni ngi toll ci Thiès Ouest tey xool ngeen mu ngi taw la jeunesse est là man sax ci boppam dama ruus tey moo tax ma ne wax góor warul gudd may faral di wax rek mooy ñun lenn moo ñu tax a jóg moy jappelé askan bi derrière son excellence le président Macky Sall. ni ngi dugg ci ay élection yu am solo mo élection législative man duma un politicien bo xamné politicien événementiel événement ba politi événement bu événement lay laay génn ajjuma fu mu jot tëj naa sama bureau maa ngi Thiès di nemmeeku sama askan di nemmeeku sama dëkkandoo di nemmeeku wa jeunesse tiesoise li day wane engagement bi ngeen am lenn laay ñaan bu ngi taw nag vraiment maa ngi jégalu bu baax tey lii ngeen wane tey wan ngeen seen conviction lenn laay ñaan mooy le 31 juillet lii ngeen mobiliser nii yéen ñëpp da ngeen dem ngeen votel la liste di benn bokk yaakaar xam nga pourquoi may wax loolu moi je suis pas candidat le président de la République a choisi ses propres

États-Unis moo xam ne ñëpp xam ne moo ñoo ko ëpp puissance ci monde bi day inondé kon dee Dakar bu inondé coow am ay nax la. li ñu doon ñaan yàlla yàlla wàcce taw yàlla wàcce na taw nañu ñaan mu doon tewu taw jàmm. lenn laay ñaan vous la jeunesse ne vous trompez pas xam leen fi ngeen di teg seen tànk fi ngeen teg seen loxo bu leen nangoo dugg ci ay politiciens yu xam ne saa waay c'est des politiciens bu xam ne toujours violence la ñu wootee la violence ne règle rien jëmewu réew kanam lan mooy jéem a réew kanam mooy un programme très adéquat un programme boo xam ne tey mun na jëmalee la jeunesse kaw je pense que toujours yéen gis ngeen le président Macky Sall est en train de poser des actions barki dem gis ngeen li ñu gën a neex mooy le président génn si taw bi di dem inaugurer ay bis de garde publique bus yi nag suñu ay bus la je profite de l'occasion de lancer waale aussi le DG de la garde publique nañu góorgóorlu entretien bu amé si ñoom la kilifa bi def na lu muy def benen bi aussi moy li may ñaan vous la jeunesse thiessoise ñun xam ngeen ñu juroom ben at ni ngi nek ak yenn xam ngeen ni qu'est-ce qu'on est capable de faire lu ñu mënul ni ngi koy def lenn la leen di ñaan moy yeen ñepp na ngeen mobiliser wu le 31 juillet suba tel ngeen teel a dem voter ji la liste di Benno Bokk yakkar tey si la liste Benno Bokk Yaakaar gagne à Thiès Dindego Thiès dina émerger ça je vous le promets man du ma dugg si ay jaaxaan kenn neexuluma kenn joxuma dara dama commission là demee moo tax ma xam ne le président est très ambitieux Amna na ay programme le président buñ ko mayaatee li muy def mooy dina jël Sénégal dina jëm kanam il est en train de poser des actes moo tax je vous le dis bu leen kenn yóbbaale

fii dina gën metti on a posé des actes yaakaar naa ni làmp na j'espère incha allah dinañu continuer aussi à vous accompagner surtout aussi la ASC bi xam na Thiès Nord dafa fekk muy taw mais yéen équipe bi li ma leen mën a préparé naa leen ay maillots ay godasses pour jàppale leen si loolu. taw ni moo rek mais les les choses sont disponibles au siège le le, le coordinateur des jeunes dina leen jox seen ay maillots dina jox seen ay godasses demain boo leen jaaree siège ba di ngeen récupérer sen affaire sen matériel. man action noble lay poser j'ai des amis j'ai des partenaires qui m'accompagnent pour le bien-être de Thiès. di parle yëpp di contane si étudiants tamit gis na sen mobilisation qui wax nako fi ya y a beaucoup d'étudiants qui sont là yakarna né ne étudiants yi gis nañu fi leen Habib ñaa